jërë ngeen jëf mbokk internet yu Dakar live ñu amati mbégte ak kontaante jàkkaarloo waat ak yéen mbokk yi nag tey ñu dellusiwaat ci fi ngeen ñu baaxoo xamee rek ci Dakar live dellusiwaat tey ak sunu jigéen moom la ñu seet si bëgg waxtaan ak moom ci actualité showbiz li xew ci dëkk bi ndax euh, moom ni may wax toujours rek boo ko amee fi ngay mën a dugg dina bari ndax ndaanaan la tey nag li nu gën a neex dañ koo fekk ci palaasam fi muy liggéeyee fi muy daane dooleem. mi ngi ci showbiz malgré mais nag mi ngi daan doole dooleem ubbi place am toog suñu jigéen Fama Faye lan leen indil euh, ñuy bég lool fekk la fii sa place tey sama jigéen. waaw nuyu naa la sama frère sama xarit di la nuyu di nuyu sa doom nday xam ni moom it euh, nit ku baax la waaw tey de fekk ngeen fi may daane doole gëj naa fi nag. jamono neex fa nii rek <laughs> xam nga xam nga réew bi moom président bu bees bi nee na toog muy dox jeex ni ci réew mi ah. Sonko Jomaay moo tax temps yi ku gis sa kaaje da ngay daw waaye tubaar fakal la fan yii daal eh, dama nekkoon ak sama rabu ndëpp mais ab sa giro madame Mbacke ku am nga rabu ndëpp man maay rabu ndëppam ci moom laa nekkoon fan yëpp ci ay yëfam mm-hmm. ànd ci ak Sofi Ndiaye mu baax mi ci laa nekkoon daal mu nekk bis boo xam ne tubaar fakal lu ne xew na fa mm-hmm. te ci kanam di ngeen ci xam dara. dinañ ci ñëw ci kanam waaye tey li ñu fi gën a indi danoo gis sa rakk mm-hmm. sa xarit eh, koo xam ne ñu bari xame nan la ak moom. muy Mamy Cobra mm, ñu gis seen diggante ni mu mel. Mm-hmm. Euh, ñu def benn vidéo bërki démb ñu gis ñoo xam ne dañoo bokkoon ci ñoom. Mm-hmm. ki nga xam ne mooy Ahmed Seck ak xadiloo euh, yaakaar naa su ma juumul noonu la euh, ñu <laughs> ñu transhumé wax ne daal <laughs> ñoom. jóge nañ ci Mamy ñëw nañ ci Mame Ndiaye Savon te ku ne xam na ne diggante Mamy Cobra ak Mame Ndiaye Savon <laughs> neexul ñu xam la ak Mamy Cobra bi nga yëgee loolu. waaye lii moo xew ci réew mi nu ne. ah waaw man ban monde la ne. Ah. ak ban jëmmoo fi wàcc fan yi waa jëmu mag moom mi ngi seetaan de. alum seetaan jëmu mag. ah, ah ngi seetaan jamono ngi yàq. lu yàq jamono. am bay lii nga ma wax léegi nii. ah eh, tas sam réew di. mu nekk nag lu ma bett. Ah waaw lu ma bett. la bett man la. lu tax mu bett la. damay nuyu xale boobu nga wax léegi mi Mamy man dama ànd ak sama rak taalibe Seydi Aboubacar Sy bi muy Eva solution dama ko wax benn bis bi yeboo nga fëgg sa loo gis du man bu dee ñaaw du man bu rafet da koy seen xam ne sama alal la waaye maa ngi yow picc peel mën ma mag ji looy wax ni ma ne ko yemal xiyam rek nu ànd taxaw ci kanamu Seydi Aboubacar Sy mu nekk nit ku baax ma ko mës a bàyyi Eva solution sama la du ma sa mës a bàyyi ah, nga ma wax nag gis nga ko wàcc sa ànd hmm. ànd boo dem fekk fa borom man du ma fekkee lu ñaaw duma ma wax lu ñaaw waaye lii nga ma wax bett na ma ndax damaa xam diggante kooku nga tudd léegi mi sama nawle digganteem ak Mamy Cobra ma fekk ci xam lu ñu seq lu bare bare bare bari ci lu baax nag ndax man lu baax rek lay wax muy xadiloo ma mi nag xale bu baax la man de leen laa koy digal ci guddi ñu tol tembe te xam naa ndayam asu job daful gën a jàpp ko pantangalu ko soo amee doom ju mel ni Mamy Cobra nekk xale bu baax xale bu am yar ku déggal ndayam ku xam ndayam mooy kan tey nii ma gisee Mamy Cobra barki démb ndax nag man gëj naa ci ligne bi nee naa la fi ma nekkoon daa baax moo tax ma gëj ci ligne bi li ma seen Mamy Cobra teg ko ci wàllu ay million jëlee ko Chine ci diggante savaak ay matériels yu muy jaay ndax kenn ku ne na nga nekk fa nga nekk di daan doole tubaar fakkaat la ma gis ko xam naa ndayam sang na ko ndayam sangat na doomam tëggat na ko doom nag bu ko ndayam sangee ba tëggat ko. ku bonoon dina dem ku baax dina toog. Ah, loo bëgg a wax foofu. waaw dama laa bëgg a wax dama la yeggaguma ci buy la bu tëjul du am njariñ sëble lu ko bënn nga ci biir ni ma gisee ma Mamy Cobra ci guddin tol tembe xam naa ni changé na doxalin bi ci desit beneen conseil bu ma koy ma mi na focus si liggéeyam te il est temps te ni ma ko gisee yaakaar naa ne amatul jotu détail xale boo demee ba yor ay plus 30 millions. di ko jënd bagage yoraat ay pris de quarante millions di ko jënd bagage yor ay prix de soixante million mu leer la ni li ngay liggéey fi ni nii guddi ñu toll tembe xale jox nañ la bopp di nga maytu lu bari te man xam naa ne guddi ñu toll tembe mami mi ngi ci loxo yi wóor ndeyam téenu ko waaw. tamit foo ne. yaa ngi yaa mhm. ndeyam guddi ñu toll tembe boo ne jàkk mami xool xool liggéey bi mu indi. ak gëm boppam bi mu indi yor ay million ngam di dugg siin di génn kabar ni Inde laa jëm dugg di génn mami mi ngi ci ay loxo xam na léegi boppam mu dellu ci ndaayam ku yebu góorgóorlu xarit nag amatul léegi àndandoo moo am c'est très rare ngay gis xarit am moo tax yi fi bett na ma ku yebu kuy ànd ak sa nawle àndal ak moom ànd bu sincère àdduna day jeex alal day jeex te nag tubaar fakal la yàlla denc na yàpp bu ne bu bokkut ak bi nga xam ne diggante e, mouton la ak ak ak ak ak bëf waaw rakk ji da ngaa ñëw ci mag de tey loo bëgg a dégg di nga sama question wax nga ci mais da nga ko brosse. non brosse ma ko dama la loolu su amee nekk lu rafet mais duma ci xuus. ndax ma xam nga lu ma ñor ku yabu gore ndax léegi jamono ji yàqu na di nga di nga di nga dinga nga di nga di nga def ba vidéo dem après ngay comprendre xanaa xamoo ànd ba lay neex ñu rayante bu nekk yem ci biirum nekk ñu xëy juboo ànd bu ndul xuloo di wo waxante wuñ dëgg ànd ba du dem mais dama bëgg nit sincère ci nitam man ñi ma loon ba léegi nii boo ma fëggee ñoom nga may fekkal man boo ma yeewee léegi ti ma ànd ngay jëkk gis ci sama titre téléphone dem mag ilimaan nday xali sama ke naar fas bute muy jàkkatu xeesal Eva solution muy jàmb tubaar fakkale ci heure di jaay boole koog di jaay yor biti gi bari tabal takkul fi te yor millions yi macha allah di ko tegg liñ te dara xewul du ma ko bàyyi mais dama ne ku am sa nit téye ko di nga dem ci nitu jàmbur fekk fa borom borom ni la arrêté ndax bis a ngi ñëw bañ ak làmmiñ ñu dëkk. damaa bëgg xale yi di maytu lu bari xëy rek bàyyi sa nit dem ci nit amul sens. lan mooy waral loolu ak ni nga ko waxee Mohamed ak euh, ki nga xam ne mooy Khady ak des fois nga bëgg kii fi ñu jaar nee nga am na fu ñu jaar ak Mamy Cobra nga xam ci lu bari fekke ko lu tax loolu am kon dama ne man su ma ko xamee grace à Mamy Cobra la man su ma ko xamee grace à Mamy Cobra la mais man déggoo li ma la loolu seen diggante la ñoom ñaar li may wax Mamy Cobra fi ko ndeyam téye nii bu mu ko bàyyi bu dee yaay mag may dégg te yaayam ku ma bëgg la dama ni nu ko téye nu ko téye te fi mu teg tànkam baax na ndax man xam naa ni Mamy Cobra guddi ñu toll tamit mi ngi ci loxo te ndey ma ko soutenir. ni nu meloon nga wax ko ñoom ñaar gis nañ booy bi Mouhamed la Ahmed Seck jël carte d'identité ne moom tey bis ni tey jébbalu na ci maam njaay Savon mooy yaayam loolu la wax biir 2STV ak fi nga wax li nga wax ne fi lan jaar ñoom ñaar man loolu laa mënta comprendre non non man ah. euh, euh, li ma mën a wax mooy diggante euh, ki ma léegi ak Mamy Cobra fekke naa seen lu bari moom nag maa ngi ko gisee woon ca cantam ka bi ci des it gis naa lu bari loo xam ne ñoom ñaar ñi ngi ànd loolu moom la neex jébul dafa rëy de ak transiment doy caaxaan de jébbalu jébbalu laax de non jébbalu du ay caaxaan man déggoo ma de xam nga loolu sama yoon newu ci damay indi ci cadre man ci lima ma li ma li ma gis sama gis-gis dama ne jébbalu dafa rëy ki ngay jébbalu na nekk ki la doy mën na am nag doy na ko ci ni ko waxee ndax bu la doy doo génne sa pièce ni ko mu ngi nii loolu duma ci wax ndax ma xam nga daal lu ma ñor na nit di gore man ngor rek ma ñor leneen ñoruma. waaw kàddu yi ñun bi ñu ko déggee fële ci ñu li ñu ñu bari lu ñu xalaat même commentaire yi dañu ñoom dañu trahir Mamy Cobra dañ ko wor ndax gis nan fu mu daan dem ñoom lay àndal tey ñu xëy xëy rek lii xew te xamuñu lu xew. moo tax gis nga noonu nga ñàkkee xam lu xew. man Fama Faye géwél noonu laa ñàkkee xam lu xew. li ma ci dégg nag bu ma ko déggee nee naa la ñoom seen diggante nekkul ay caaxaan du falaa falaa du mili mili mbàcc. demee ni comme mais xam nga kon euh, xam nga loo yëgul tinoo dañu ñëw rek wax ma ma xool vidéo gis am naa droit ni mën nañ ko defe nee nu bokkut ak nii bi ci des mooy ku gis ma Mamy Cobra xam ne mi ngi ci loxo ndayam c'est simple. duggal ci beneen cas. loolu daal nga ci mën a wax. jox ma beneen dossier. yaa ngi yaa cof ji ma wax dama wax li ma ci xam xam nga man nag euh, yàlla daf maa dimbali. Mhm. ba lu may wax ci wàllu média bi dama koy xam. Mamy Cobra sama rak la ma xam ko ci fulla xam ko ci fayda xam ko ci bëgg nitam xam ko ci man mu seqal teraanga daf mu koo seq ba mu doy bi ci des ku yebu gore xanaa xamoon nga kër fàtte. te boo def teel a jël yëkk boobu. Fama bu ñu gisee act bi nga xam ne Khady Lo ak euh, Ahmed Seck def nañ ko dafa mel ni defante moo leen ci tax a jug parce que bu ñu seetluwee mami Cobra kenn ki nga xam ne moom la gën a teg bët kenn ki nga xam ne moom lay defanteel muy Mame Ndiaye Savon ñoom ci euh, foofu ca 2 yi ñu taxaw jébbalu seen bopp ci Mame Ndiaye Savon comme si que ne dañoo bëgg a indi benn guerre boo xam ne dañ koy defante kii di mami Cobra. no fii guerre amu fi nee naa la man euh, xam nga dafa am. Euh, non li ma laaj léegi nii mën naa la ci tontu. Ah. ndax ci soo Sobiza bokk. Ah. Euh, waaye dama ne la diggante boobu guerre xaju fa. Ah. diggante boobu fi senegal toll guerre xaju fi nañu nag xaw a maytu tuuti ndax des na tuuti ci réew mi fi mu toll TikTok bi dootul am njariñ mm. waaw ndax dinañ ko dina toll foo xam ne kenn dootu ko bëgg. te jamono yooyu la nekk man pour man du defante dañoo xool li leen neex ñu def ko est-ce que yow dégg nga ma nee naa la cas boobu li ma ci wax mooy Mamy Cobra nit ku baax la. mais li ci garaaw mooy nga bàyyi nit dem ci ki nga xam ne duñ wax ennemi sax mais ci ki nga xam ne jubóowuñu ñoom ñaar seen diggante li fi jaar lépp ñu xuloo àddina bi yëpp yem ci. tey su ma la bàyyee dem ci sa noonu su ma ko mënee waxee noonu. li naan euh, sa tubay boo ko gisee ci sa taatu noon loolu mën naa moytu sa tubay xarit book euh, euh, li nga wax dëgg la. Lof Njaay nee na. sër sa noon di woddoo sa sër bi ngay woddoo yow mi xaritam. bu ko séenee ci sa sa taatu noonam. Ah. dalay xeeb waaye man xam lu ma bëgg man fan laa ko jëlee fi ne yekk coow li xam fan laa ko yekk hmm. exemplaire man. dama la wax sànq nag ma ci bàyyiwul xel ma ne ku yebu gore déedéet tollu ma noonu man du ma war du ma jàpp di bàyyi déedéet après boo fayantoo pare danga koy rëccu toog muñ ko faj ko fa ma ko war a fajee est-ce que metti na ko mais des fois yow yaa ngi dem tëgg sa yëf ni kii dama koy naqaral tey barke Alaaji Malick yow mi nga xam ne yaa ngi naa ngaa teg da nga koo teree moom reer na ba nekk tey doo reer dérangé bu ko yëgalu ko yàpp yaram man maa la wax lii loolu nañ ci def très attention li nga teg naqari na naqariwul kooku ni nga ko peesee ba ni poids bi su ma ko jooyee naa ko teg sama nawle sa nawle yenuwul poids bi. lii bi ci loolu. bi mu ñu gis vidéo yeeg ak léegi déggante nga fekk Mamy Cobra. Mamy sama rakk la. waaye il faut ne. lu ngeen ci wax affaire bi. non dama ci wax ak moom. Ah, déggante wuñ ci déedéet waaye mami tamit di nit mami xam showbiz déggante wuñ ci ndax da nee naa la man temps yi dafa am ci li ma nekkoon déggante ma ceeg moom te duma ko woo ndax olof Ndiaye nee na nanu bàyyi nit def jëf nga naa ko envoyé kam ko defanteel amul sens jaxase weesuwul loolu may buzz ka bëggoon buzz ba tax mu def ko weesuwul loolu man duma ma transféré nit audio du ma transféré nit vocal du ma woo kenn ba dugg ci waxu jàmbur ndax ñoruma ba ngaa dégg-dëgg Mamy Cobra nit ku baax la nitu valeur la bi ci des nag moment bi lii di xew moment bi aw ma jot woo kenn. ndax la dama nekkoon ci ay mbir. ci mbir yoo nekkoon. Alsaan Mbaye <laughs> Malick Koumba Diop fra lamb mhm. ajatu jooju caamay ndeyam nit ku baax. waaw ñu ngi koy nuyu moom suñu grand la Alsaan. Alsaan nag mm-hmm. tëral na géwél bu ne mm-hmm. waaye dafa tëral géwél VIP yi Alsaan tax na les jeunes griots yi ci réew mi nu weeg leen mm-hmm. xale géwél nga jox ko ay million mu takk jabaram ba xewlee nga ngénte jëndum xar tabaski jot nga jox ko xar koor nga jox ko sukkaru bu dem màkk jotee nga xool magi géwél ci réew mi nga yóbbu leen kenn ko ci nekk wan leen nabi ñu teg ni cee lay yem ngay takk say million boo xëyee fajar di wër ci jàkka yi pa boo njëkk a dajal jox ko 5 millions 500 ni ko damaa bëgg nga dem ziyaar ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. mais Alassane Mbaye nag tubaar fakkala macha allah. lu baax li muy def wër na réew. nañu dégg noo jànnee sa noo sànni jëm rek ca minam ñëw sëb tur bi di aji. grâce a Alsane Mbaye bëri na ñoo xam ni ñoo sànni jabar ci minam ñu sëpp tur bi di Alaaji lépp ndax grâce à Alsane Mbaye waaye dafa am lu ko dàq xale yi dawal nañ ci oto yi te la. loolu dëgg la. mag yi géwél yi xale yi géwél yi takk nañ ci or bi te Alsane Mbaye la. loolu am na. bëri na xale yi géwel yoo xam ne ak kilifa mag yi géwél yi fi nekk aar metti loolu Alsane Mbaye jox leen ay titre foncier ñu dëkk te dara xewul Alsane ngi ci jàkka yi. alsaan a ci social bi alsaan a ngi ci dimbali doomu aadama te rek tax nit ku bëri yërmande nit ku gore nekk nitu valeur nekk nit ku baax barki démb nag ku ne xam na ni aw ma ku dul ab sa giro mu boole ma ak la Sophie Ndiaye lébu bi nit ku baax nga xam ni mairie ndeyam mu nekk nitu valeur doomam ñu koy indil warugar min dénk Pambeng Pambeng nag soo ko déggee mooy borom agence bu mag bi ci Yoff mu nekk nit ku baax kuréel femme bi dégg nga tamit ci àll bi dagana àll bi ci dagana chéri nday mbay ñu koy indil warugar alsaan fekk ma fa nag yëkkati la mu or bi jël un million ma ko. bëgg nga takk ko. dem xew maa Khady Gueye si Dieye Fatim Penda maa ñaay ma bëgg nga dem ca xew wa bi ku ko lamu bul def laa takk. Ah, mooy gar te yamu ci. taral ma tëral ngoni ñing jox la mu million. naata mbaay la mu million te nag ajaratu naata mbaay mbaax mi ma koy nuyuwaale min na jëfu alsaan ak jikkoy alsaan ak tolluwaayu alsaan alsaan nag nit ku baax la al ma sama téléphone ma woon ko preuve les amis de alsaan mbay man mi maa ko yor man ak ngooni yaa naata mbaay lañu ko def ku am mag mu baax mag mu yiw moom lañu ko def les amis de alsaan mbay nag mu nekk fan si club bu waaw moom mën naa am fan sa club bu ne Alassane ndax taxawaayam ci réew mi waaw mi ngi a ci nekk waaw waaw da nga fekk ni gis nga message yi mhm. ay junni nit ñoo ci nekk mhm. kenn ku ci nekk di wax lu baax te bin ko ubbeeg léegi amagul amagul amagul vingt quatre mhm. waaye réew mi yëngu du yaa ngi gis lu yéeme laa lay wax de ci di suñu digganteeg Alassane Mbaye Alassane nag yemul fii suñu digganteeg moom te nag la ma ko waxoon laa leen ni waxaat guddi ñu tol tembe dina saf sàpp ci suñu page yi nit ku baax la mm-hmm. nit valeur la mm-hmm. nit koo xam ni kenn xamul euh, tolluwaayam ni ko ñu bëggee mm-hmm. ñëpp ko bëgg mu bëgg lu baax ba pare am yar bi ci des dama ko gën nawaat ndax estafam foofu laa doon jëm xam nga olof dane topp topp geesu la sant nit bu lay topp danga koy geesu waaye moom ñi koy topp mi ngi leen di geesu alsaan dëgg la euh, moo tax ma ni la lu am solo la ndax alaaji Alsaan Mbay soo ko xoolee ak njabootu boppam gi njabootu boppam gi nag euh, dama ci jiita ajaratu Maane Mbaay mm. jéegam bu baax boobu nga xam ni yaatu na ba yaatal ñëpp Maane Mbaay moo yaatal ñëpp ndax Alsaan dafa jaboot mu nekk jigéen ju baax nekk jigéen ju gëm boppam waaye ku bëgg borom këram euh, olof Njaay nag dañuy kër du kër góor yoru ko mm-hmm. jigéen mooy defar kër kon Maane moo defar këram mm-hmm. mu ànd nag ak ajaratu Gañ si Siri Caam mu baax mi ajatu Aram Thiam nekk nit ñu baax loolu moo tax nag Aram Fall mu nekk nit ku baax Aram xaw ma nag santam sax nag ndeysaan waaye mu nekk nit ku baax ànd ak ndumbe mu nekk staff bu dëgër boo xam ne su ma xëyee Saña Mbaye ak aada xasaay rek réew mi yëngu na kon ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñi ngi ci biir staff bi te loolu dafa am solo te alsaan mi ngi leen téye jàppale leen bi ci des mooy alsaan fu mu jëm ànd ak njabootam nit ku baax la nit ku jaboot la dama koy wax ni ko dañ koy bàyyi ak yàlla man Fama fay nag daf ma defal lu rëy du moom kese moom njëkk a takkal or ndax am naa géer gu ne waaye sama nawle muy sama frère takkal ma or boole kook lu baax lam ca wax ñu yéete waaye kër maa xadigéey mu fekk ma fa yëg yëkkatiwaat deux millions liggéeyul bu ne cinq cent mille mu nekk liquide du bokkut ak or bi loolu nag sant yàlla la kon Alsaan jërëjëf jërëjëf mbay yow nag sa tub doog nga hmm. yow tubaar fakal la liggéey day biti ko pertuwal sa yaay moom loo ñu ko waxal rek doy ndax suñu grand la mbay eh, eh, mbay mbay ki nga laal dafa sensible ci géwél yi géwél ak géer nag ndax bu njëkk ba bu doon ànd ak géer ñi dañuy bàyyi géer ñi tubaar fakal la taal seeni oto ñu toog ci ginnaaw waaye Alsaan mbay sëtu dogo bi moo am oto waaye liggéey ndey biti ku pertuwal sa yaay alsaan tubaar fakal la boo demee ci sa ju baax ju gër ju toog toogaay bu sell bi doon ko lu liggéey sama kër bàyyi feeñ ña ndakaaru loo bëgg a faj faj ko alsaan luwaay di wax di bu ma xëyee dinaa ko lijjanti ci bu guddee nga fajal ko doomu aadama te bal du tàkk fital du jóg mhm. nga nekk nit ku baax alsaan bay nitu valeur nga alsaan nitu valeur nga yal na sa jàmm yàgg yal na yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram yow nag comme neexa comme naqa da ngay gudd fan laaj ma lu tax ku war lekk ci wërsëgam yaa ngi koy lekk maa njaago bi da ciy lekk mhm. yaakaar Zizi mhm. ki yaakaar moom alaaji Malick mhm. da ciy lekk ki yaakaar Serigne Bamba mi ngi ciy lekk ki yaakaar maam Limaamu Laay mi ngi ci ñam boo demee tubaar fakkal la Njaasaan ku yaakaar Cheikh Buntu Kunta yaa ngi ciy ñam waa mbay kan la deseel senegal gépp macha allah alaaji alsaan ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk ko wér ak jàmm ak tawféex yàlla yokk taraangaam ba bàyyi ko xelam mu sell ba li muy jëf ci réew mi ci lu rafet yàlla na ko gën a man loolu yàlla na ko ñu ngi ko koy ñaanal ndax moom suñu mag la ni ñu ko waxee sànq hmm. bala ñoo tëj nag ñu waa yoonu Zénith lan jëm ah, yoonu Zénith lan jëm hmm. bun bun bun bun jëmee yoonu Zénith xam nga siidi Diop Mm-hmm. moo tëgg Zénith ànd Matar suba teel producteur bu mag boobu fan yii yëpp communication boobu lëmbe na réew mi ndax Dakar Live euh, sii jëm Zénith yaa ngi koy dégg yaa ngi koy gis. mais mais Dakar Live nag boo bëggee dégg-dëgg nag moo xew na xale yi moom lañ bëgg nag <laughs> boo bëggee euh, euh, gis cadre yi cadre yi nga xam ne nag bëgg nga leen gis ci image. Mm. ci yéen lay ngeen koy wane may njëkk nuyu nag El Hadj Papa Diouf sama mag ji. Mm. grand frère ñu ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu bu baax mbokkum ndeyum yaay ji bi fay mbaam bu dem ak ndàcc mi ci loo fee mu nekk nit ku baax barki démb dama seetaan benn vidéo rek fi la saa def euh, seen papa Diouf bi muy digal Sidi Diop ni ko da war a yaatal mm-hmm. ma xam ni daal euh, suñuy wax monument mm-hmm. Pape ma nga ja Pape nit ku baax la mm-hmm. ndax boo jiitee ay xale di leen lu baax nit ku baax nga bi ci des moo koy gërëma Waly Seck xam nga Fra Maret bi barki démb bi ma mayee euro yi maa fekk li police bëgg ump leen ci internet bi Aïda Saliou sama yaay ji borom ñaari faama yi yaayi Michael Jackson Seck Michael Jackson Seck la ko tuddee. ah man dëgg la Aïda Saliou noonu lu ko tuddee ma yóbbu fa ndog lu bari waali bi moo mayee bi ma ko wecce ko daa ëpp million yu bari ma denc kon Wally Seck yal na yàlla guddal fanam mu recevoir rakkam nag. lu kenn xaarul woon waaye nit ñi ba tey Wally saa yu xëyee woon sénégalais yi boppam nit ku kasari nit ku baax la dama ko wax ne kul ni jàkk xam ne yàlla am na lu mu mooñaaleeg yow de coow lee fi nekk rek kon Wally bu recevoir Sidi Diop rakkam boole kook dooleel ko boole kook ni ko ku ma am dina ànd ak yow dem Zénith boole koog ci li ma dégg Pawlish Mbaye mu baax bi wax ko barki démb ne ko dinañ boole xale yi dem répété la loolu nit ku baax koy wax Wally la ki ko yor moo ñàkkul fit ku mu teg loxo nga dem. suba teel. Matar Diop ma Diop Mbacco Matar ba rayoon maamam kooku la joray maamam Sénégal nañ ko gën a bàyyi xel Matar Diop xale bu mu teg loxo dina la dégg daa am ñett yi ne ci moom muy fit jom ngor. dëgg la. yàlla moo ñaale ko ci fulaak fayda mu baax marqué empreinte ci réew mi marqué ko bitim réew. Mata Diop Subatel sama waa jooju sama mag jooju nekk nit ku baax man label Subatel laa bokk. waaw. Subatel. waaw sama yëf la. Subatel moom ñëpp xaj nañ Zénith fees sama pare. coow li fi nekk àndoon na ak Pape Diouf dem Zénith. ànd ak Wally dem Zénith. ànd ak Wally dem Zénith ñu jógee te fa mu dem ànd ak. Baaba Maal dem déggu ma ni. ànd ak Viviane waaye yow est-ce que xam nga ni. ma yëpp fi dem Zénith yëpp moo leen yóbbu. xam nga lu ne am na marque. Hmm. waaye kon mosoo xam ni Matar Diop Sabatel marque international la waa tamit nag fi tam ko may bu yeggee da koy daan kon Matar Diop Sabatel sa Zénith bi yàgg Sir Diop sama doom jooju yal ko yàlla mottali yal na ko yàlla mottali te nag dina neex ndax nag am réew boo ci nekk da ngay tàllal ñëpp loxo ndokk nag bi leen yàlla defalee ngeen tàllal ñëpp loxo ba ñëpp mën a ànd ak yéen dem rawatina nag bii. baa takk ngeen bi dëgg baa bàyyi woon leen fi ah. man kenn du ma fi bàyyi. <laughs> Matar du fi bàyyi kenn. Matar Diop boo ma déggee takku naa ba dëgër maa ngi buntu sa nit taxaw di la xaar. du fi bàyyi kenn ñëpp lay yóbbu. Matar nit ku baax la. Matar nit ku am ngor la. Mm-hmm. Matar ku mën nitam la. Matar Diop nit ku baax la. nit koo xam ni boo xoolee ba peese sa bopp fëgg sa dënn bala nga wax dara ànd ak Matar Diop. Mm. un mois laa la may ak quinze jours boo gisu sa bopp nga xàcc. da gis sa bopp wax nga dëgg de. ndax Matar moo mel noonu. ndaanaan Matar ku mu teg loxo nga dem man bu ma Matar cofoon ni sax damay dem waxumala ak bu la tegee loxo maa xam Matar Diop. macha allah kon yoonu Zénith a ngi noonu euh, mbokk yi ni leen ko waxee rek xam nga Zénith moom chaque jour ñu indil leen ci dara ci communication bi fii ba baa ñu ciy àgg bu sooba yàlla ngeen ci ànd ak Dakar live looy tàggoo. waa li may tàggoo nag euh, nekk ci yoon woo xam ni yoon wu ma ñor la muy yoon woo xam ni Euh, euh, euh, yoon woo xam ni dama ci bëgg a dem muy yoonu Dubaay dama bëgg a seeti sama mag ju baax Kaba Soxna borom ñaari maas yi nga xam ni nit ku baax la nit ku bari valeur ma nga Dubaay ñu koy wax roq maska dama ko waaje nii nag dem kàbbar dem seeti ko bu jullee ba pare rek waaye ma leen di wax nit ku baax a ngi noonu doomu wàlliwu nan ko bay xel nit ku gore ku dëkkul kër fàtte nag gore rek ba dee roqi maas yàlla na sa jàmm yàgg bi ci des mooy sama rabu ndëpp ki ma nekk rabu ndëppam mu giroo ma di sama jéeg bi yàlla na ko yàlla defal jàmm borom waa seen tool diis yi yow bi caq yi jotee nga ma njëkk a jox collier bu cher boo ko peesee ci or mu toll neuf millions trois cent ab sa giroo loolu la jëflanteeg man mu nekk nit ku baax ma koy jaale tanta bi koy dëddu barki demb mhm. di ko jaale yaayam ju baax ji di ko jaale Amina Giro di ko jaale toute la famille yaa xadi sekk jaale naa la ko bu baax mag mu bëgg deret mag mu bëgg mbokkam mag mu baax magu valeur maa ngi ko koy jaale bu baax a baax a baax a baax di wax ni mbay nag ca kaw ca kanam ragalu ma leen de heure bu leen ñëw leen kër gaa ngi fi lay daane doole. waaw yow jigéen yàlla na ko yàlla yokk place bi ah ñu ngi ñaan daal fii moom yàlla nekk ay magasin magasin vraiment ndax euh, lii dafa am solo jigéen buy daan doole moom. ñaanal ko encouragé ko rek ngay ngay mën a def. te te te promo yu rëy. ak euh, tabaski gi. nee naa la ku bëgg décor. soo amul lépp da ngay ñëw rek. Mhm. ñu bind la ci karne bi. nga joxe li nga am. Oh. def ko jooni jooni. tubaar fakal la ndax nag ci tabaski la nu nekk ku xam ne korite xale ko moom waaye tabaski gi ñun ñoo ko màngee ko moom. Mhm. te léegi dafa war a jongoma war a set war a xeeñ neex mhm. te lépp màngee ak moom. na ñëpp wàcc euh, ren nag sama promo tabaski kenn rek laa ko tuddee muy Eva Solution moom xam nga boo ko tuddee léegi lay ñëw jël bitig bi yëpp. fii yaa ngi fan. Euh, maa ngi centre commercial marché Thiaroye yu Gumba la sama numéro téléphone nag 77 287 16 24. yow dañ lay may loolu waxaat ko. dama ni 287 16 24. ma jaay la lépp loo bëgg ci xeetu décor mm-hmm. nee naa la xale yaa ngi yor bitigu décor yi tabal tàkkul fital jógul waaye sama événement ren kenn rek laa ko tuddee Eva mu Serigne Babacar Sy Malick te xam naa tuddi naa ko nii bu koy dégg vidéo bi di daw. mu ñëw jënd bitig bi <laughs> bitig bi lay jënd. affaire bi jeex <laughs> bitig bi lay jënd ma wàcc dem tëddi. kontaan nañu. bi ci des xaru tabaski yi nag maa ngi xaar képp koo xam ne rek war nga ma jox xaru tabaski teel koo indi. Eh. <laughs> waaw ki ma doon jox njëkk jox xar nag mooy honorable député Mame jaara Fam. loolu neex na de ku ma war a jox xar koo indi. soxna Aida Saliou nee na motoom dina ñëw. Ah? waaw te xam naa ne soxna Aida Saliou bu indee motoom. Mhm. ah Eva solution moom mut moto ma nga tax yeewee. Ah, man sama rakk moo yónnee xar. sama sama jarbaat daam Seck transitaire bu mag bi. Ah, daam Seck moom waaw noonu la ma def waaw nee na ma joxuma la ginaaru tabaski waaye maa lay jox xaru tabaski Dame Seck. nit ku baax Aïda sama doom ja ca Gambia nag from Gambia mhm. la vaillante bu mag boobu xam naa moom bu koy dégg sama mouton di ñëw. Mhm. waaye mouton yi daal eh, ñi ma daan jox mouton ñëpp xam na seen bopp na teel a ñëw. Matar suba teel gis li muy joxe ci xar. Matar yëgoo loolu. ah Matar jox ma mouton. yow kon yëgoo li dama ni nga yónnee ma sama xar jox ko jib fay. Oh, jeex na Matar Diop. Eh. woo jib fay joxal ma ko sama xar wala nga joxal ma ko Xaadim Diouf ni ko ni ko ni ko faa fay ko moom faa fay géwél. sarak sama mouton na ñëw. man nee naa la réew mi moto na naroon noo bari ren rek. sama yaay jàng jëm Makka waaye nee na mi ngi na ma yónnee mouton bi bala muy départ honorable kontaan nañ moo may njëkk a jox xar. maam Jaara maam Jaara Faam at mu ne barke El Hadj Malick xaram mi heure bu dikkee rek mooy ëppale xar boole koog damay jox enveloppe boo xam ci laa jënd xorom xam nga nag xaram tabaski xorom ma ko yor ak poobar xorom ak poobar rek a ko yor mbay. yàlla mën na kontaan nañu mbokk yi bég nañu euh, sunu jigéen du Fama Faye ni leen ko waxee rek émission bu nu fi def yoonu Zénith lañ ko tuddee ngir promo boobu nga xam ne ñi ngi koy def ngeen ànd ci ak Dakar Live Sidi Diop ndaanaan bu mag boobu ànd ak le meilleur producteur Matar Diop suba teel ñu war a dem Zénith incha allah le 29 juin lay doon mbokk yi. Zénith dina neex dana xumb dana dagan na ngeen ko waaj ñi bawoo senegal ñi nekk Europe bawoo Europe bi fu ne Angleterre biir France Espagne Italie Allemagne Portugal Londres na ñëpp ñëw sii Sidi Diop mi nga xam ne ah suñu rakk la suñu artiste la ndaanaan bu mag boobu ànd ak le grand producteur Matar Subatel daam sekk transitaire bu mag bi ni ma ko waxee maa ngi lay ñu di la bëggee nee na ma xaru ginaaru korité yi jàll na mais xaru tabaski maa la koy jox sama jarbaat daam Seck borom port tey émission bi yaa ko moom Dame Seck borom port kontaan naa ci yow yow sama jarbaat nga sama xarit nga maa ngi xaar xaar mi nag jënd naa buum gu mag toog di xaar <laughs> ay ca mbokk yi tey Fama Faye lañ leen indi loon bu ëllëgee ñu xoolal leen keneen jërë ngeen jëf